Aziz Mbaye yaa ngi am. maa ngi caméra bi maa ngi sant yàlla bu o bëgg naa nga fàttali ñu ban poste nga occupé au niveau du CNC. man maay président commission des finances. président commission des finances kon wàllum koppar mi ña koy saytu yaa leen jiite. maa leen jiite de mu mel ni au niveau du CNC démb def ngeen point de presse. jël ay décision rawatina lu jëm ci wàllum heure combat yi. loolu boo ci doon dikkaat di ko leeral Sénégalais yi si Dakaractu loo leen di wax Abdou Aziz. Babacar yaakaar naa ne circulaire bi génn fàttali la ndax amna na cyclette bu ko jiitu bu tënkoon loolu yëpp mais nag dama yaakaar ne ñun ñëpp yàlla moo ñu nattu ci làmb ñu bëgg ko dañoo war a ñun ñëpp xool lu koy defar mais gis nañ ne circulaire respecté wuñ ko moo tax ñu ne defal nang prenons les devants ba nga xam ne di xew ci làmb dootu fi mën a xam nit mënu la dugg ci arène 15 heures toog di xaar làmb ba 22 heures xëy na ki bëgg làmb jaral na

exemple tay bo jele combat Moussa Ndoye Mbaye Gouye wala nga jël Balla Gaye Tapha Tine boo ko ak combat dam sen ak ki nga xam mom moy pam Mbaye est-ce que bu ñu ci combat yu mag yoy événement yi est-ce que décision yi dina tolloo ak yi ak yi combat. Babacar xam nga la lay laaj. ndax licence yi dafa am licence bu ñu def petit lutteur wala grand lutteur. dedet amu ci mom kon nak ñom ñepp ñom ñepp lay dal. te ku ñewul heure biñ ko convoquer tay manam dañ koy forfait xam nga forfait bi day fekk nek nga ci biir lamb ji. ci biir enceinte bi wala. ci biir lamb ji heure bi jot. arbitre bi wote ñetti yoon ñëwoo ñu forfait la. manam ta biñ la may bu jeex arbitre wala ñetti. waaw bo ñew dañ lay forfait. dañ lay forfait. ak mbeur mo meuna ak mbeur mo meuna doon ñu delo ko promoteur bi waaw. mbeur yep yep da kaw. yep commencé ko ci yaawu jaal ba ca Balla ak modlok Eumeu Sène ak Girek Ama Baldé ñëpp fii amul VIP bu ñu jëmee ci côté administration rek VIP amu fi licence yi ñoom ñëpp même prix lañ ko amee kon mënuñoo avantage kii bàyyi kii. loolu lu CNG jël la euh, fan yi wala état bi moo ko ko jël la wala lu fi yàgg la. non non jël loowu ko mais xam ngeen ne nag yéen xam nga loo yanu maanaa Babacar Babacar gis nga bu làmb tasee insécurité bi ñuy nekk. xëy na ñun ñu nekk ci biir arène bi ñëwuñu pour di agresser waaye nag ñi gàmmu ak ñiy raas diem bokkuñu mais nag bu ñu permettre ñiy raas diem mën a jaar ci ñun pour def loolu mais nu on est fautif fu ñu tuddee ku ñu agressé dinañu tudd Babacar dinañ ma tudd loolu nag dañ koo war a daw. mais waxtaan ngeen ak promoteur tamit ñoom ñuy tëgg journée yi. Ah, waaw promoteur yëpp. combat yi ñuy tëgg par jour. promoteur yëpp bi. léegi nag procureur xëy na bu ci bëgg loo xam ne leeral la wala càmbar wala argument wala observation man nga rapproché wu CNG waxtaan xool. Abdou Aziz kontaan naa ma maa maa maa na sa jàmm yaa. allahumma amiin yàlla nañu ko yàlla boole defal amiin amiin. kookoy Abdou Aziz Gueye Abdou Aziz Gueye a ngi noonu président commission.